mbokki jullit yi mbokki taalibe yi salaamualeykum wa rahmatullah waa daara Jawartu laa bu Paris ñooy am mbégte di leen xamal ni ñaareelu xaaju téere boobu ñuy wax question pour un mouride bis ni ki tey noppi na ni ngeen ko gisee woon nag ci xaaju njëkk wi téere bi ko taxaw na jóg moo di jàngale lislaam yonante bi sallallahu alayhi wa ak xadiis yi jàngale ku tedd ki ak xasida yi ku tedd ki ak njaboot bi ku tedd ki ak mag ñi maam Cheikh Ibrahima Fall ak njaboot bi lu bees nag li ñu ci indi moo di téere bi ñu ko tënk bi yoon ci alphabet wolof loolu nag liñ ci jublu mooy gën a jàppandal njàngum wolof bi ci mbokku taalibe yëpp leneen li nag moo di ay kàddu soññe yuñ ci yokk jëmale ko ci sunu bopp waaye it jëmale ko ci mbokku taalibe yëpp kon képp ku bëgg fàggu boobu téere rek mën ngaa jege waa cellule communication bu daara laa يعني الجف والسلام عليكم ورحمة الله